en fait c'est ci loolu laa bëggoon ñëw rek euh, tey jii lan la ñu mën a def pour pour assainir ko parce que euh, loolu nga wax il faut ñu assainir ko lan moo war a mën a et puis mm. euh, ban appréciation nga am yow quand on de des supposés nervis di opérer mm. au même moment ak les forces de defence et de sécurité ñuy dégg bavure yi mu leer la ne yenn yi manque de formation moo koy kii mm. parfois ma dem découvrir événement rien que la manière bi bi bi soi-disant nervi bi di déplacé damay damay seetaan damay reetaan parce que il se met en danger te du ko xam tu tu vois nettement que kii il n'a pas été de de mm. lan mooy sa appréciation si si appréciation si loolu donc loolu responsabilité état tamit daf siy joué bu baax parce que amoon na benn euh, kii de projet boo xam ne defoon nañ ko tuddee ko CRAPS conseil de régulation des agences privées de sécurité donc euh, mu xam ne day am démembrement état yëpp muy euh, ministère de la formation professionnelle finance ministère de l'intérieur donc euh, loolu rek la état mën a teg donc projet boobu ñu ngi ciy doon liggéey pour ñu mën a assainir le milieu te aussi tamit foofu autorité yi parce que euh, nervi yi en matière de sécurité du du question physique du doole xel la mm-hmm. loolu aussi tamit foofu man ma leen wax ni veille élection bu amatee nañuy dem ci agence de sécurité privée yi nga xam ne état reconnaître na leen ku ci mel ni ay agence 911 sécurité am nañ suñuy agent yoo xam ni tout au long de la campagne mun nañ la accompagner ak seen badge apparent ñu xam ni problème bu amee dinañ mën a xam ni telle agence moo géré woon sécurité tel autorité. loolu rek moo moo gën di dem di jël ay nit pëcc xoo bi for ci mbedd bi. Mm. parce que bi ma nekkee Garci en 2019 euh, mooy problème pur bi amoon Tamba. Mm-hmm. Euh, te mu amoon euh, ay. Mm-hmm. kii yu fa amoon. soo dee xool bi ñu leen interpellé boobu maa ngi woon Garci groupe d' action rapide de surveillance intervention bu gendarmerie. ñu ñoo leen jàpp indi leen ki dira mais soo dee xool am na si ñoo xam ni maa bokkoon ak ñoom koñ ay mbër lañ ñii ay dawalkatu sareet lañ am nañ doole rek ñoom ñëpp ñu recruter leen. acca journée 10 000 wala journée 15 000. affaire bi du doole waaw affaire bi du doole. sécurité da nga koy jàng du doole li may wax ñu nekk GARSI wala gen xam nañ ko. Mhm. sécurité xam-xam la la sécurité looy jàng la. soo ko jàngul mënoo ko def loo am am doole ñu defal la formation accélérée wala dara toujours day am ay failles comme ni ko Kajoor waxee. parce que di ngay assurer la sécurité d'une tell personne mais yow après yow yaay nekk en danger te doo xam. te ko xam mhm. moo waral bu yenn yi amee comme yi ngay gis ci télé yeeg yooyu yëpp euh, yenn bavures yi par force day day am. ay blessé yeeg yooyu yëpp ngay gis. Ah.